gannaaw nuyu ñaari shérif yu tedd yi toog di shérif Ibrahima Haydara ak shérif Turaab Haydara ak nuyu Xaaji Mamadou Seck mi nga xam ne moo jiite LC di xarit di soppe gannaaw nuyu ñooñu ñi ci des ñëpp nuyu woon naa leen mooy wax rekk ci li ñu tax a jug gannaaw bi ñu defee li ulama wuy di tuddee tamhiid waxtaan wi njëkkoon a def lépp tëm tamhiid la waaye mawdoo bi ñu war a waxtaan ak yéen moom lañ fas yéenee waxtaane ko nii te mooy lislaam ak liggéey diine lislaam diine la juy woo xeet wi yépp ci liggéey duwul diine yàccaaral duwul diiney nasax duwul diiney yaafus duwul diiney tayal waaye diiney i'malu fa sa yara llaahu amalakum wa rasuluhu la diine lislaam diine la juy xoo xeet wi yépp ci amal dara dafa bëgg foo mën a ne rekk nekke fa amal dara waaye soo nekkee ku am te amaloo dara rek yow amatuloo dara jooja nag mën naa nekk dara juy dellu ci sa bàmmeel di la xaar wala mu nekk dara juy dellu ci sa poos jëm ci sa njaboot waaye saa yoo nekkee ku nekk te parewoo ngir nekkal ñaar ñi yow nekkatuloo soo nekkee ku nekk nekk kuy nekkal benn bi te mooy kuy dundal sa jëmm ji rekk muy amal dara mu jëm ci poos jëm ci njaboot waaye fekk rooxu ga deena su boobaa yaag bàyyi may yi yene moom la maam xalifa di junj ne wala takku lil ixwaani kallan alayhimu wala tarda ayshan mithla ba bahimati loolu mooy kuy dundal jëmmam ja fekk rooxam nga deena waaye boo nekkee tamit kuy dundal sa rooxu gi te dundaluloo sa jëmm ji kuy taxawee benn tànk nga wala nga koy doxee jullit nga waaye jullit yépp a gën ndax ni ngay def bu ko ñëpp defoon doo mën a taxaw bay julli ndax rooxu xaaj la ak dundinam ci jëmm bu jëmm dundul rek rooxu du mën a dund waaye nag jëmm mën naa dund fekk rooxu tamit dundul kon lislaam dafa bëgg nga boole ñaar yépp dundal sa jëmm ji ci liggéey dundal sa rooxu gi ci jaamu yàlla moo taxoon Omar ibnul Xataab daan wax ne man de sib naa gis kenn ci yéen loxoom yaa nga féex mu nekk ko am jot nekkul kuy amal ñaari njariñ yi ku ma gis nekkoo kuy sonne ñaari njariñ yi rek man Omar sib naa la bëgguma laa xam moo tax mu ne inni la akrahu an ara ahadukum faarigan laa fi amali dunia wala fi amali axirati daana wax ne léegi léeg dañ may présenté nit ma fonk ko naw ko waaye suñ ma waxee ne amul métier rek mu mujj xeebu ci sama kanam ma mujj su ma ko joxoon cent mujj sax dootul amati un pour cent ci man ndax li yonent bi ne woon inna allaha yuhibbul abdal mutaharrifa yàlla bëgg na jaam bu am métier waaye saa yoo nekkee ku bëgg a dund amuloo métier yow nekk nga jaam bu yàlla bëggatul diina ji tamit diine ñaq la ngir mën a jariñu diine ñaq la ngir mën a jariñe waaye duhul diine pexe jariñu jamono ji nag pexe jariñu rek la nit ñi gëm waaye gëmuñu ñaq jariñu waaye dafa bëgg ngay ñaq ngir mën a jariñu ñaq woowu ngay ñaq ngir jariñu moo lay protéger ba doo tuur sa ndoxu xar-xaram jëmee ko ki sa moromam gor dara gënta métti soo soxlaa ku ne nga woo boo soxlaa pexe mu ne nga tëral boo soxlaa gor yépp yëg la nga weeru sa soxla door a faju loola nag la la ca mën a musal mooy ngay ñaq ñaq woowa mën a dox sa digganteeg tuur sa moro sa sa sa sa sa ndoxam xar-xaram jëmee ko ci sa moromi gor yi te loola baaxul diina ji diina la joo xam ne day woo xeet wi yépp ñi góorgóorlu ci ba nga tayal fu ñu toll di liggéey ndax dañuy wax ñett su gane see ñett rekk day dëkk kenn mënu ci dara su la yàlla nattoo nga màgget lool feebar gane si la jërul sonn day dëkk ndax maanaam feebar dafa neex ci gannaaw ci yaramu màgget moo tax sax màgget rek doy na feebar ñaareel bi soo soo réeree yàlla dogal lu ñuy tuddee rëy gane si la yaa ngi réer lool rëy lool jërul sonn ci réer rek ngay dee loolu baaxul te réy réy gi gën a bon réer gi gën a bon moom ngay dee mooy lu ñu tuddee jëhlul murakkab jëhlu ci usul ñaari xaaj la jëhlul basiit ak jëhlul murakkab jëxlu basit garaawut mooy da ngaa réer te nangu ne da ngaa réer kooku boo ko nangoo rek ñi xamal la ba ko nangoo rek am nga genn wàll xam-xam bañ la xamalee rek nga boole koog loola am am xam-xam bu mat sëkk xam bëgg ngaa dem ndakaaru xamuloo yoon wa nangu nga ne xamuloo ko ba nga ko rek ba ko nangoo ne xamoo ko rek laaj juddu nga laaj rek waa ji xamal la ko yàgg moom ngeen xam ca moo tax yonent bi daan wax ne nisma ilmi laa adri genn wàll xam-xam mooy xaw ma waaye li gën a bon ci réer mooy jëhlul murakkab mooy réer ba pare te réere ne da ngaa réer ñaari réer moo fa daje réere nga li ñu waroon a xam réere nga sa bopp ne da nga koo moom la shaa'ir ba ne wa min ajabil ashyaa'i annaka laa tadri wa annaka laa tadri bi annaka laa tadri kon boo réeree jàllal bi ku rëy si réer rek ngay dee kenn mënu ci dara ñetteel bi mooy ñàkk lool takk soxna mu ñàkk am say waajur ñu ñàkk yàlla na toola feebar feebarab tayal gane la kenn sëriñ mënu ci dara maanaam ci ci ñàkk rek ngay dee ñàkk lool boole kook tayal borom maanaam ci ñàkk rek lay dee moo tax benn waaye mos sama laaj ne dama dégg ne lëngeen yi di nekk ci néeg kooku am da ngay wumu doo am dara ma ne ko lëngeen mënta teree ñàkk am dara waaye lay waral lëngeen mooy taxal ñàkk te mooy tayal ba sa lëngeen yi doo ko dindi kooka doo am dara ndax tayal googa moo waral ngay ñàkk kon diina ji diina la juy xeex ak tayal ñaan gi mu doon ñaan sallallahu alayhi wa sallam bu xëyee tayal bokkoon na ci yow yàlla yàlla nga ma musal ci tayal yow yàlla yàlla nga ma musal ci ragal yow yàlla yàlla nga ma musal ci lottu ñaan yu mel noona saxoo woon na di ko ñaan kon ku bëgg a am dangay fexe nga dem di ñaq bañ a bokk ca ñay tayal diine lislaam diine la joo xamee dafa bëgg nga dundal sa dund ak àdduna gi la ca war yépp ci wàllu liggéey nga taxawee ko waaye nekk koy taxawee sa liggéey yëpp àllaaxira la ca war lépp nga taxawee ko ba ñu ngi wax ne sax day maanaam yonantoo wax ne euh, ma euh, maanaam euh, nekkal ci àdduna mel ni ku dul deexati waaye liggéeyal ba mel ni dootoo deexati jaamul yàlla ba mel ni tey ngay dee mais du hadis muy imal li dunyaaka ka annaka taishu gadan ka annaka taishu abadan wa amal li axiratika li axiratika ka annaka tamuutu loolu du xadis waaye nag wax ju wér la tekkiwut ne nag xadis boo gis wér na waaye tekkiwut ne wax ju wér ju ne tamit xadis la kon lii ma bëgg a wax wax ju wér la waaye taxul mu nekk xadis boo ko doon seet wax yu mel ni moom ci alquran bëri na wax yu mel ni moom ci xadisu yonantu bi bëri na jaamul yàlla ba ba ngay dee alquran wax na ko wax bu wabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin kooku alquran la xadis ñëw na yonantu bi ne boo yore woon njëmbat wala nga yenu sa jiw wi war a dem di ko ji ñu ne malaakama ma ngay taxañ suuf pour àdduna tukki yonentu bi nee na bu mu teree nga ji sa ji sa jiwu wa kooku day def la ko war rek yow tamit defal li ngay nekk kon loolu mooy liggéeyal ba ba ngay deexee moo tax kon diina ji dafa bëgg nga nekk kuy dundal sa àdduna waaye nekkal kuy tabax ëllëg sa tabaxab àllaaxira ñaar ñii alquran xàmmeewut leen boole leen ñàkk leen a xàmmee tax lim leen tudd ñoo bokk si ñoo bokk lib ci alquran boo jëlee àdduna muy xayaatu dunia alquran téeméeri yoon ak fukk juróom la ko tudd muy 115 fois rek moom la nekk boo jëlee xayaatul axira muy al axira tamit téeméeri yoon ak fukk juróom la ñëw ci alquran kon ñoom ñaar yàlla ñoom la boole lim bu leen jox maanaam ci alquran moo tax boo fi nekkee naan damay jaamu yàlla di wor ba bëccëg yi damay la guddi yi waaye duma liggéey su boobaa yow ku yées a yées nga yonentu yàlla isa mos naa toog ñu ñëw wan ko benn waay isa ñoo ne ko ma tasnahu mu ne ko a abudu lillah mu ne ko man yaxuluka mu ne ko axi mu ne ko axuka xayrun xayrun lakka mu ne ko waaw yow lan ngay def fii mu ne ko jaamu yàlla rek mu ne ko ku lay dundal mu ne ko sama mbokk mi moo ma yore lépp mu ne ko sa mbokk mi moo la dàq jaamu yàlla am na riwaay boo xam dafa na sax ah maanaam axuka abudu minka sa mbokk mi moo la dàq jaamu yàlla waaye yonent bi moom da koo waxee ki nu gën a gàtt bañ ko laajee saaba yi toog di tagg benn waay bu mën a jaamu yàlla ci woor ay bëccëg ci naafi la guddi coow la bëri ba ñu ñëw ci yonent bi ne ko diw ni mu baaxee nangam ak nangam mu laaj leen ne rek kan moo koy dundal yonent bi gaa yi ne ko pourtant benn mbokkam moo ko moo moo koy dundal yonent bi ne kullukum xayrun minhu yéen ñëpp a ko gën kon soo fi nekkee bëgg a dundal sa kurus bëgg dundal sa penku bi bëgg a dundal sa àll sa sa kaamil bi te yow ci sa bopp amuloo menn métier ña lay ñi lay dimbale ba nga mën a taxawee loola ñooñu ñoo la gën fuuf ndax yaa ngi nii su fekkoon ne tey lekkuloo doo mën a tudd baatam seede bi kon doo mën a wéetal yàlla soo lekkul wala nga naan doo mën a taxaw di kàbbaar di rukkoo ak a sujjóot soo lekkul wala ngay liggéey doo mën a tax far taxawee ponkab lislaam bi di aj màkka soo liggéeyut doo mën a taxawee ponk ponkab lislaam bi di di di joxe asaka xatta ba ci weeru koor boo wooroon ba ngoon jot liggéeyoo ngir am loo dogee soo ko defee ñaar du ñett bu ñettee tamit du ñeent ponk yooyu yëpp mujj yàqu ci sa kanam te li la ko yóbboo mooy ñàkk liggéey kon ku bëgg a dundal sa diine mu jag da ngay nangoo dundal sa àdduna diine lislaam diine la juy ñëw ngir ñàkk nit ki euh, ba mu ba mu mën a ñoŋe ci àdduna waaye diine la joo xam ne tamit day ñëw ngir ñakk sa diine ba nga xam ne dara du ca mën a yàqu ngay mën a dundee lu loo xam ne yaa ko ñàq boole ko loo xam ne tamit yow mi yaa ko liggéey loolu mooy diine lislaam liggéey nag bu ca dara nekkutoon njariñ yi rek doyoon na ci njariñ li mooy liggéey moo mën a suqali aw xeet jëlee ko ci ndóol jëlee ko ci ñàkk jëlee ko ci euh, yaafus jëlee ko ci tële yóbbu ko ci koom-koom yóbbu ko ci naataange réew yi gënoon a ñàkk bërki démb boo leen seetee ba ñu fonkee liggéey dem nañ tey ca kanam Brésil gi exemple la ci Inde gi exemple la ci Amérique gi nga xam ne bu yàggul la juddu moom tamit exemple la ci nga fi mel ni ku tudd koom-koom sa xel daj siin loola lépp bokk na ci li leen ko yóbboo mooy nangoo liggéey kon liggéey mooy suqali aw xeet liggéey moo yóbbu aw askan ca kanam liggéey moo mën a teqale nit ki ak ñàkk moo mën a teqali nit ki tamit tabaarakallaahu ak jafe-jafe loolu lépp loolu njariñ lu rëy rëy la beneen bi ci tegu liggéey boo koy def am nga ca amoo ca nga sonn te dugg digg di nelaw yonentu bi nee na yàlla da lay booleeg malaaka mu lay ñaanal di la jéggalul say bàkkaar bay bër bi setee kooku kuy liggéey dong moo ko man waaye kuy xëy di taxawaalu ba ngoon jot ngay tëdd yi nelaw doo am menn malaaka mu lay ñaanal waaye dem nga xëy soqeeku nga soqeeku huloo am nga amuloo comme yaa ngi def effort rek bis boo tëddee di nelaw sa nelaw ya jaamu yàlla la yàlla nga la booleeg malaaka mu lay ñaanal ba set loola yiwu rëy rëy la ñetteel bi ci njariñ yi yonentoo waxal boppam ne bakkaar yi ñuy moyee yàlla am na ci bàkkaar yoo xam ne dara mënta tax yàlla jéggal la ko soo ko xasee moyee yàlla waxul nag bàkkaar ba ban la waxul sàcc la waxul ñàkk wax dëgg la waxul iñaan la waxul soxor la waxul maanaam mooy ak muy ak njaalo la moom daal dafa ne rek am na ci bàkkaar yi bàkkaar yoo xam ne soo ko xasee mooyee yàlla julli mënut koo effacé aj màkka mënu koo effacé naka noonu jihaat ci yoonu yàlla mënu koo effacé la ko mën a effacé rek mooy liggéey ngir mën a ñaq ngir jariñ sa njaboot man ngir mën a jariñ sa askan kon booy aji ñu ne kat aj gi jéggal nañ sa bàkkaar yépp na fekk nga nekkoon kuy liggéey ngir mën a aj ba jëlee ca loola wala nga nekkoon kuy liggéey ba tali manatuloo ko kon su boobaa soo demee aj aj ga dana jégg dana ñëw effacé sa bakkaar yu njëkk ya yu mujj yi yi nga tey yi nga tayut yi nga xam yi nga xamut yu feeñ yu nëbb yi moo tax mu ne inna mina dunubi dunuban laa tukaffiruha salaatun wala sawmun wala hajjun wala jihaadun illa saaya fi l iyaal kon liggéey am na solo bu ca dara nekkutoon effacé gi muy effacé suñ bàkkaar yi rek te xamuñ bakkaar yooya yan la xamuñ mën nañoo yóbbu safara loole rek doyoon na tabaarakallaahu ci liggéey liggéey mii nag lu ama am solo la am solo gi mu am solo tax yàlla fonk liggéey ba boo càmbaree alquran yàlla tudd na baatab liggéey téeméeri yoon ak fanweeri yoon benn mbir nag bu ko yàlla tuddee téeméeri yoon ak fanweer ci benn téere kenn mënta dem bàyyi ko gannaaw kenn manta nekk ca kanam lu dul da nga koo yóbbuwaale boo jëlee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama hadith yi wax ci liggéey yépp boo ko calculé juróom-ñaar fukki hadith la ak juróom benn yoo xam ne benn bu ci ne yonantu bi mi ngi ciy ñaax xeet wi ci liggéey di wax tamit liggéey njëriñ yu rëy yi nga xam ne ni am na ko menn mbir bu ko yonantu bi baamoo wax ko waxaat ko ci waxin yu wuutee maanaam juróom juróom-ñaar fukki yoon ak juróom benn kon mbir mooma foor na boo jëlee asaar yi ci saxaba yi ak ci taabiina yi da nga fekk mu mat fanweeri asar yoo xam ne benn bu ca nekk lii ay saxaba ñoo ko wax wala ñu jëf ko lii ay taabiina ñoo ko wax wala ñu jëf ko bu fekkee ci taabiina yi danaa ci jël benn taabiiyatu bu ñuy tuddee xafsatu bintu sirin dafa daan wax ne yaa machara shabaab i'malu innama al amalu fi shabaab mu ne liggéey de waxambaane yi rekk sax ñoo ko war a def yéen waxambaane yi liggéey leen bu leen pertal seen temps bu leen sànq seen dund gi mu ne ndax daal liggéey ak waxambaane dong moo ko man nekke li mu wax sax alquran la ci yàlla fu muy wax ne allahu alladi xalaqakum min doxfin summa summa jaala min baadi doxfin quwatan summa jaala min baadi quwatin doxfan wa shaybatan ba laaya ya jeex dafa bëgg a wane ne yow doomu aadama dama laa bind benn nga nekk ci benn man-man ñaari mën a di séq la yaa ngi déparé ci mën a goo soo bëggee gudd fan nga ñaan ko ba yàlla nangul la ko yaa ngi teeree ci manatoo su boobaa na kon genn man-man gi am bul ko sàgganee profitooxal nga manal ci ñi la mën lu toon waaye préparé ci nga manal ci ñi war a soqee ko ci yow waaye boo amee genn man-man googa foye ko caaxaanee ko yow kenn gënul la sànku kenn gënul laa perdi kenn gënul laa tamit ñàkk kenn gënul laa perte kon nag boo toll ci sa digg waxambaane lu mu laaj rek jox ko ko ci bépp liggéey boo xam ne lislaam nangu na ko te bàkkaar nekkut ca bul ko xeeb ndax ku xeebul sa wërsëg mu mën laa yore ku xeebul sa métier bu ëllëgee tamit mu teral la li lay xamal beneen beneen beneen beneen asar bi ab taa ab saxaabi moo ko wax di Omar ibnu Xataab moom ci boppam dafa daan wax ne man Omar yàlla jël sama bakkan fekk ma sama magasin ba may jaay moo ma gënal mu jëlee ko fu dul foofa kon Omar mu ne sax deexee ca waaram wa wala ca toolam ya wala ca magasin ba moo ko gënal génnee àdduna ca jàkka ja kon xam nga ne kon loola am na doole liggéey kon foor na kon wax naa la asar yi boo jëlee hadis yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama li mu wax ci liggéey bari na waaye benn rek laa ciy wax wane ne liggéey du xeebu moom dafa daan wax ne kenn ci yéen jël génn buumam dem ca àll ba taxani mat ñëw di ko jaay moo gën muy laaj nit ji moo xam jox nañ ko moo xam joxuñu ko kon loolu li muy junj moom xadis bi mooy rek métier du xeebu ku fonk sa métier lu mu xeebu xeebu bu yàggee métier ma dana la mujj teral te saa yoo xeeboo sa métier mi lu gën a xeebu rek ngay def soo amul métier lu ñu wax nga ne man passé naa loola sama classe passé na loola da nga bëgg a dund ñaaray taxaw sa kanam tagg ku tagguwul wala nga xas ku xasuwul wala ngay ngay tappale di agressé wala ngay sàcc wala ngay def lu bon rek ndax mënoo dundee suuf si mënoo dundee xobi garab yi kon métier lu mu tuuti tuuti boo ko xeebut fonk ko mu teral la bëri nañu may déglu ba ngi ñëw ndakaaru gi saaga rek lañu amoon di dog ay karton di di di fanaan ci roon bâtiment yi ak ci kër yu yeggul yi te tey euh, bëri na immeuble yoo xam ne boo laajee ñoom ñoo ko moomoon kon bëri na fu nit di toll nga ñee ko waaye fa mu jaar bu la ko waxoon nga xam ne kii li mu am moom ci boppam mérito na ko ndax ku sonn rek suñu borom moom dana la fay sa coono ba ndax moom mi ngiy dégg te mi ngiy gis lépp moo tax mu ne liggéey leen yàlla nga koy seedee yonentu bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy seede bu yàggee rek nag mu mu wan ko jullit ñëpp ñëpp jàkkaarloog lañ doon liggéey résultat ba kon liggéey lu ama am solo la xadis boobu loolu rek lay tekki métier du xeebu ku topp sa métier fonk ko moom dana la teral te bëri na fi ñu yoroon métier yu xeebu lool tey mujj nañu nekk ay milliardaire bëri na fi ñoo xam ne fa ñu bàyyeekoon ba ñu ñëw ndakaaru bu ñu séenaan oto yu daw ko may wax ne ñi daan daw oto yi jamono ji ñooy dawal oto yi te loola lépp góor góorlu di liggéey moo leen may loola bañ man caa yegg boo jëlee alquran aayaat yi muy wax ci liggéey eh, bëri na yàlla fonk liggéey ba utalul ko frontière wane ne ne fii la frontière u Sénégal ak Mauritanie Gambie fexeem tubaab yi rekk la waaye man yàlla suuf si lépp sama suuf la jaam yi fi nekk yépp samay jaam lañ fépp fu ngeen yaakaaree wërsëg dem leen ngeen uti ko moo tax mu ne famshu fi manakibiha wa kullu min risqihi wa mu nushur beneen bi ci tegu yàlla fonk liggéey ba lu la man di dal du teree yàlla sant na la ngay liggéey am na koo xam ne yàlla jël na tànkam muy benn na dem seeti liggéey boo xam ne ku amul tànk mën nga ko am na koo xam ne ñaari tànkam yépp dem na demal nga toppatoo liggéey boo xam ne ku amul ñaari tànk mën na ko am ko amee tànk amul amul loxo demal nga seet liggéey bi bi nga xam ne méngoo na ak yow sa man-man nga dem defi ko am na kii dafa tëx kii dañoo jël ay bëtam du du mu toog na dem seeti liggéey bu bu tolloog lam man mu dem defi dem defi ko alquran na nga koy wane ci suratul fi fukki yi nga xam ne ñoo bokkoon gaal ga ñoom ñoo nga ñu ñàkkoon lañ te kenn ku ci nekk feebar bi la dal bokkut ak bi dal sa morom terewul dañ doon liggéey ba alquran ne fa ama safinatu fakkaanat li masakina yaamaluuna fil bahri kon loo mën a dal lu la mën a dal rek mënoo koo layee ne damaa war a toog waruma liggéey demal nga seet liggéey bu méngoog sa man-man googa fa mu toll kon aayaat yi yëpp mi ngi junji fooraay gi nga xam ne liggéey moom ci boppam foor na ko yàlla mi sant liggéey nag moo ngi ci man ñun ñëpp ndax ku xool asamaan xool suuf xool sa bopp xool li fi nekk ki ko liggéey bu ne la ñëwal nga liggéey dafa bëgg rek nga defaru ndax moom la mu lay sant moo la ca jiitu la mu lay sant tamit moo la ko gën a man noonu tamit la def aadama bi mu bindee suuf ci diggante dimaas ba ajjuma mu door a bind aadama wan ko ne ko li ma doon def lépp pare na ñëwal yow nga war koo jariñoo booba nag aadama bi suuf di pare lépp mu ngi woon ci biir aljana ak soxnaam yàlla xamal ko ne ko waa ji may gis sab noon la di iblis pexeem bu sottee rek dootoo teqalikoo ñaari mbugali baatin yi ak ñaari mbugali zahir yi ñaari mbugali baatin yi mooy bu pexeem sottee doo dootoo teqalikoog mar foo toll da nga mar bay bëgga dee da nga mar sax fatte na naanoo woon waaye tamit bu pexeem sottee xiif dana la xaw a rey da nga yendoo liggéey ba fàtte na yow sax añuloo waaye bu pexeem sottee ñaari mbugali saahir ya foo toll yaa ngi ñaq boo waxuma loola tamit foo toll yaa ngi rafle moo tax saa yoo raflee na sa xel daj iblis nga rëbb ko na boo maree walla nga xiif wala coono yooyu dal la neel yàlla na yàlla rëbb iblis bu taxutoo nag moom kenn du sol tëndi travaay moo tax yàlla ne inna haada aduw laka wa li zawjika fala yuxrijannakuma min aljannati fa tashqa foofa yoonam ci soxna sax waaye jëkkër ji rek lay wax ak yow yaay sonn yaay xiif yaay mar waaye waxul soxna sax ndax yaa koy leel yaa koy dox ndox mu muy naan yaa koy jox yaa koy war a wardu ak lu mu mën a am moo tax góor ñu bëri rafle nañu taal quran waxoon na ko am na ñoo xam ne xew wu jot buñ xottilee seen soxna yaak doom ya duñ dese dara ñi mujj rek cuubaat yëre ya ba mu màgget góor ñu bëri ñu toog ba bëccëgu lëmm duñu naan te fàtte nañ dañuy fàtte sax na ñoom naanuñu am na ci góor ñu bëri duñu lekk te dañuy fàtte na sax ñoom lekkuñu kon kon lam ko waxoon ne ko inna laka alla tajua fiha wala taara wa innaka la tadmau fiha wala tadha jëm ko waxoon loolu lépp maanaam yegg nañ ci loolu lépp ki ñu ko yóbboo mooy suñ noon bu bon bi di iblis aadama nag wàcc ci kaw suuf xam ne àdduna dafa métti ku fi bëgg a nekk da ngaa war a bëri ay pexe dama bàyyeekoo ci place boo xam ne lépp ma war te dara warut ma ma soxla mu ñëw dama wàcc nag ci place boo xam ne lépp ma wër te lépp war ma kon danaa bëri ay pexe mu wàcc ànd ak junney mbéeca la aadama wàccee ci kaw suuf moo tax bu nit fëggee dënam naan man de l'homme douze mille métiers la aadama sañ naa fëgg dënam ne man l'homme mill métiers la aadama métiers ya bëri mu ne naa tànn mbay moo ci gën a barke moo ci gën a sakkan moo ci gën a yaatu moom la tànnoon di ko def doomam ya ñëw ci xaabil ak haabil ñii tànn sàmm gi ñii tànn mbay mi noona lay ñëwee ba yonent yàlla sa ñëw di sët ci moom wane ne nit ñi naal soxlawoo ay loo sol mu jël xob yi rek ak garab yi di ko dagg di ko euh, di ko jël di ko làqee sa kanam ak sa gannaaw métti na mu daan na métier am mujj maanaam di ñaw moo tax kon métier moomu métier am noobul la métier suñu maam Idrissa la yonentu yàlla noox ñëw yëg ne kat nit ñi fi ñu dëkk dañuy bëgg di tukki kon fokk ñu liggéey lu leen di mën a transporter fu ñu bëgg a dem ci jéeri ji wala ci géej gi ci la mujj moom nekk menuisier ba moo liggéey gaal googa mu defaroon ko yonentu yàlla Ibrahima ñëw ne nit ñi dañuy aajowoo fu ñuy dëkk moo tax moom mu ñëw tànn nekk maçon ba moo tabax kaaba ga ak doomam ca Ismaila ba alquran ne wa id yarfau ibrahimu alqawaida min al bayti wa ismailu waaye tamit ñaareelu méccam doon a sàmm ku bari woon ay gàtt la ba gis nga sax ay gàttam matoon nañ ñeenti junney xaj yu toppoon gàttam ya te xaj bu nekk nañ la takkal ceinture yi or ceinture ba nekk ca doq xaj ba ëpp na 30 millions buñ ko waxee mu ne àdduna medd la ay xaj rek ñoo koy xëccoo soxlawuma ci dara loolu nag tagganoon na ci sariyaam ngir hëdëf booba waaye jël ay or wala xaalis di ko takkal ay mala daganut ci suñ bi ndax lislaam bëggul kuy yàq alal ba ne bu leen ko jox sax ñu dese ña koy yàq bu leen leen jox alal ji donte ñoo ko moom na ngeen leen namm xool leen ba nga xam ne ñor nañu kon loolu moom moo daganoon ci sharia am ngir hëdëf ba waaye même bu daganoon suñ sharia bi ba ñu jël ay xaj ak i xar di leen takkal ay ceinture or yaakaar naa ne balaa nit ñaa agressé gaaya nit ña danañ mujj agressé xaj ya su boobu maanaam xaj ya ñooy mujj ñoom am problème beneen bi tamit moom mu ñëw daan jaay or di ko wecci ba gis nga dañuy wax borom xam-xam dañuy wax ne aljana su fekkoon dana am métier métier mañ fay métier woo mooy soppi xaalis métier mu maanaam lañ fay métier woo kon mooy jaay or bu fekkoon ne safara dana am métier métier mañ fay métier woo mooy soppi xaalis soppi xaalis métier la mu sensible boo ko xamul rek wala nga topp ci sa bakkan rek mën na laa yóbbu ëllëg safara booy wecci xaalis xaalis yi nekk benn daganul ëppalantee daganul yéexee yow mi ci car rapide beeg njaganjaay beeg tata bi ñi lay wax nga naan weccetu bawal bawal laa fi am bawal bawal yi nekk nit ñu baax bëgg sëriñ Touba nga bëgg leen a tooñ naan moom laa fi am 1000 francs 950 loola daganut comme xaalis yaa bokk su fekkee xaalis bokkuñu kii euro la am kii CFA wala dollar bi taux ba cay tegu ëppalante ba dagan na waaye daganut yéexee jox ma léegi ma jox la léegi waaye am ma jox la ma dem jël yi ñëw door laa jox loola ba ca duggee xaraam na bële ribal fadla la koy fukkaaw yi tuddee bii riba nasi'a lañ koy tudde ku mu ci ñaar yooyu benn daganut eh, ci nga jël tamit yonentu yàlla a ñëw yëg ne nit ñi dañuy soxlawoo ku leen di liggéeyal di jaamu liggéey eh, eh, maanaam soxlaay askan wi nekkoon maanaam homme d'état nen fa bëggoon ñi nome ko mu nekk ministre bi yore koom-koomu réew mi ba daana wax ne ij'alni ala xazaini al ardi inni xafidun alim noonu lay demee ba mujj nekk sax chef d'état mujj ilif misra nekk président ba doomu bàyyi yéen ñëw doole ñëw di fa jëggaani mun ne indil leen ma seeni ñooñ ma yore leen ci la yonentu yàlla Suleymaan ñëw ba mujj bokk ci ñeent ñi ilif àdduna bi ci rabbi habli mulkan laa yambagi li ahadin min baax baadi kon loolu lépp mi ngiy am yonentu yàlla daawuda mi yam ñëw di rabb ay mbubbi koŋ pour nit ñi mën a xeexi man leen a protéger ba kenn du leen mën a gaañ noonu lay demee di nga gis tamit ba yonentu yàlla saa ñëw wane na métier du xeebu ku sa dàll yàqu nga yóbbu ko mu defaral la ko di ca mën a toppatoo lu mën a defee dépense kon métier du xeebu loo mën a nekk boo ko fonkee bu yàggee rek maanaam mu teral la ba sayyiduna muhammad ñëw sallallahu alayhi wa sallama moom ci boppam sàmm na ndax yàlla ñaareel balaa yónneeb yonantu dana ko sàmmaloo bu sàmmee nag ba réussir ca caawa ga mu ne kii ku ko yónni ki nit ñi dana baax ndax ku mën a def ak mala yi da nga mën a def nit ñi te léegi-léeg jamono mbétti nit bon ba jëflanteeg mala gën a yomb jëflanteek nit ñi ndax mala yi lu ñuy bari bëri ci ji jamono boo leen doon sàmm benn yet dong moom nga yore te mala lu mu bon bon bu gisee njariñam daw wuti ko mala lu mu bon bon bu gisee lu koy lor daw wan ko gannaaw yow nag su fekkee ne ku lay jariñ wala lu lay jariñ bëggatuloo ko mala yee la gën su fekkee tamit lu lay lor pare woo ngir daw ko mala yi moo la gën moo tax yàlla ne ñi ma lay sàmmaloo ay comme mala lañ mala yi sax ñoo leen tene kon faw nga dem sàmmi mala in humu ila kal am bal hum adallu su ko defee kon yonent bi jaar ñette loola gannaaw si gi mu dem defi commerce waaye ji nga commerce am dañ koo rangoon marchandise muy dem été ji fële ca Saam rango du dara ku lu ñu la jox rek nga koy jaay am loo ci am wala bu weer dee ñi fay la wala bu at mi jeexee wala bu ngeen réglé par six mois moo tax lii ñuy tuddee tey ambila yonent bi def na ko mooy ku ñu jox mang euh, bagage ngay dem di jaayi te amuloo place dem ba saam di ko fa jaayi kon yéen ñii ambila bu buñ leen bëggee sonal naan fi ngeen nekk dañ leen ni dàqe nangu leen nit mën na laa dàqe waaye mënta dàq sa wërsëg bi su fekkee tamit dañ leen a bëgg a toxal jërul xeex jërul xuloo nangu leen a toxalu nit ki mën nga koo toxal waaye mënoo toxal wërsëgam moo gën nga nekk fa di xeex ak bala nga amoon maanaam nga ñàkk ko ca dara jaru ko te loolu yonent bi def na ko ràng nañ ko marchandise mu dem Saam amul place di jaay la ca la ca root loola ci la takkee soxnaam bu tedd bi di aawaam saydatuna Khadija gannaaw bi mu ko booleeg may saratu kon métier mu tedd la métier mu foor la mu jigi nag yàlla woomalee na ko ci guntu xam ci ay jaaseem mu xare di gañe yéeféer yi yàlla ubbil ko ci sag woo xam ne wu yaatu la kon li ma bëgg a wax daal métier yi bëri nañu gis nga yonantu di seen maqaama di rëy rëy kenn ku ci nekk da ngaa amoon sa métier moo xam ne ci nga ci nekkoon di ca tedd di ca mën a teral say waajur di ca mën a teral tamit say mbokk gis nga métier yi tamit wax naa la ne bi ci jiitu mooy mbay kon mooy cosaanal métier yi ndax moom la aadama njëkka a jël tànn ko ci métier moo tax métier yi bëri nañ waaye mbay moo ci gën a parke mooy première métier muñ métier woo ci kaw suuf ñaareel bi mbay moom kenn kese la yonent bi joxeñoon ne utlubu risqa min xabaayal ardi dem leen ngeen sàkku ji wërsëg ci biir suuf te mooy dem leen ngeen bayi ngeen exploité suuf si la ca nekk ndax ngeen man koo jariñoo doomu aadama suuf la soqee ko suuf rek la cay génnee moo ko àttan bu deexee tamit ci suuf rek lañ koy denc moo tax kon réew mu bëgg a dem ca kanam faw ñu fonk mbay waaye bu ñu wanee mbay gannaaw rek ñooña du ñu dem fenn kon nag réew mu mën a doon bu mbay ma doxee doxaaleel koom-koomu réew ma lafa fa doxutoon mbay ma dana ko doxal bu mbay ma doxut nag lépp lu doxoon ci réew ma ñàkk a doxu mbay ma dana yàq loola kon suñu bëggee réew mi avancé nañu góor góorlu dem di bay mën a exploité suuf si ñu yàlla jox ñiy bay noor bay nawet xëcc ci ndox mi taraas tasaare ko fu nekk baykat yi di bay su boobaa ba ñu ñee leen waaye léegi koo ne ko demal bay mu ne dafa maa xeeb koo ko yow doomu baykat nga mu ne dafa maa xeeb loolu nag fekk mi ngi am ci réew mi réew mi avancé dana yéex waaye bu ñu demoon ba ñee baykat yi ñee doomi baykat yi comme nañ leen ñeeyee ca France ñeeyee leen ko ca Amérique ñeeyee leen ko ca itali foo ca dem ci réew yi baykat ya ñooy milliardaire la kon nag bu réew mi yeggee foofa rek réew mi naat waaye bu ñu xeebee mbay wan ko gannaaw bu boobaa tamit réew mi du mën a dem fenn te dañuy wax ne wërsëg su fekkoon ne téeméer la juróom-ñeent fukk yëpp maanaam ci mbay lay génnee kon mbay am na solo mbay foor na moom kenn mooy métier moo xam ne da nga ci employé yoo ñoo xam ne defaluñ la dara te dañ lay yàqal yow nag maanaam entreprise boo mën a am ñaar rek ngay employé say employé ñaar a ca nekk mooy ku man métier mi xam ko lool boole ko nangoo liggéey buy nit kiy yàq nga dàq ko bu nanguwut a liggéey nga dàq ko yow baykat bi nag yaa say emploi am na ca ñoo xam ne ña ngi lay yàqal te mënoo leen a dàq keroog ba nga tànnee sa jiw wi la ay gunóor ñëw dugg ca saako ba commencé yàq jiw wi te mënoo ca dara nga dem ba ji ko gunóor yaag fekk ko fa di sulli gerte gaag di yàq mënoo ca dara mu dem ba sax jaalaan yi ak gunóor yi commencé ko yàq mu dem ba màgg njéeréer yi ñëw di ko yàq te mënoo ca dara nga dem a dem ba mu màgg yaa ko bay mais picc yi ñoo la ko njëkk a mos loolu bay rek moo ko man moo tax kenn du yonantu bi ci mën a jàngale ne ma min muslimin yaxrisu xarsan aw yasriu saraan fa yakulu minhu tayrun aw insaanun aw bahimatun ila kaana lahu sadaqa mu ne amul kenn kuy jëmbat am jëmbat mu màgg wala nga bay am mbay mu màgg la cay gunóor yay lekk ba tey yent yent ya xasraatul ardi ko ci lekk lépp sarax lañ la koy bindal moo tax ñu ne baykat bi ba mu yenoo jiwam wa ña ko wax ne ko yaa ngi koy bay de waaye danañ ci lekk bu leen déggoon sax dem jaayi jiw wa ne ñii ñëpp bu ñu lekkee man dootuma lekkati kon bay métier mu màgg la métier mu barke la moom la njëkk a métier ci kaw suuf kon ku bëgg a defar suuf si wala nga bëgg a defar réew foofu nga delluwaat ci mbay fonk ko dimbale baykat yi taxawu leen su boobaa maanaam réew mi dana mën a avancer ñun nag alhamdulilah rabbil alamina yàlla may nañu espace yuñ mën a bayee boo jëlee tey Sénégal yaatuwaayu suuf lépp nekk na dix neuf milliards millions ci ay hectares yu teg boo jëlee tey lañ ca mën a bay quinze pour cent rek la quinze pour cent yi mooy tolloog trois millions yu teg trois millions yi hectares yu teg yooya su fekkoon ne lépp dañ koy bay noor ak nawet du ñu jëggaani dara waaye lañ cay bay boo ko seetee 62 pour cent la boo ko jëlee nag 38 pour cent lépp mi ñu ko bàyyi mu nekk suuf suy nelaw nekk millions yi hectares yu teg yoo xam ne kenn bayu ko su boobaa loola buñ ko bayoon dootuñ jëggaani dara te Sénégal bokk na ci réew yi ëpp lu ñuy jëggaani ci àdduna bi Nigéria mooy numéro premier Sénégal mooy numéro deux ba tax na Sénégal yi téeméer boo gis juróom-ñett fukk yëpp ceeb ba ñuy lekk dañ koy jëggaani kon ñaar fukk yi rek ñooy ñoo xam ne li ñuy bay ci réew mi ci ceeb moo leen mën a dundal su boobaa lool bu ci réew nekkee pour réew ma avancé dana yéex su boobaa kon jël mbay nii bay noor di bay nawet mën a dund mën a man suñ bopp ndax bala ngaa mën a man sa bopp day fekk nga gañe sa dund ku mënta gañe sa dund mënuloo man sa bopp kon nag mbay mi na ci ñëpp dugal seen loxo su boobaa rek fu ñu bëgg mbay mi dana fa yegg na ci politiciens yi nga xam ne matuñu 1 pour cent ci askan wi te lu ci bëri lu yàqu ci ñoom lay nekk exemple bu ñu joxe amul kenn ku baax ku leen naw tey nga ànd ak kii bu follee koo nga xas ko tey nga ànd ak kële bu fi nekkatul nga xas ko yow daal sa intérêt bopp moo la gënal intérêt askan wi li sa waxi ren bokkut ak sa waxi daaw loolu ba la ko gën nga dem dundee sa ñaq dem bay ci millions yi hectares yi ñu deseeg li ci tegu mën nga caa am ay hectares nga dem bay ba tey tamit ak sëriñ rek du métier saa yoo bëggee dundee ak sëriñ te amuloo métier da nga sonn sonal say taalibe moo tax léegi sëriñ yu bëri seeni taalibe ñu ngi leen di daw seen i taalibe ñu ngi leen di nëbbatu sax bu ñu nekkee seen sëriñ du ñu nangoo feeñ ci ñoom ngir bañ tamit ku leen sonal ndax jamono ji dafa métti ñi ci man seen bopp na nga ko yaakaaree demeewut ko kon nag sëriñ nekkul rek jël kaalawu fu ne nga dem di sonal nit ñi loola dara jaru ko su boobaa tamit da ngay toog ba nit ñi soxla la ci lañ lay door a mën a jariñ waaye sëriñ yëpp dama fay bëggoon a ñëw rek leen laay sedd leen déglu wala sëriñ ab ma fee jaaroon mënul ma leen a teggi loola dara juru ko xaaral ba gaa yi soxla la soo demee foofa dañ la mën a jariñ yooyu yëpp nag dafay sonal nit jël kaala rek fu ne nga dem te sëriñ Abdoulaye dafa daan wax ne kaala balaa dem ci baat ci sa bopp bi na fekk mu ñor waaye bu ñoragut bàyyi ko ci ndigg la rek waaye waat naa ci yàlla sama maas gi bëri na ñoo xam ne seen kaala yee ñor dañ koo rënk rek ba mu gaaw ñor noonu ñu yëgal ko ca baat moo tax sonn lay doon di sonal sëriñ ba heure bu nekk benn bis mu gaare oto gaare rek sa borom kër ga daw départ wan gannaaw genn njaboot ga topp ko mu jigéen nag ñooñu wàcc yore seen i bureau ne suñu oto bi moo sofee ndox lañ soxla doom ya topp ko ne ko papa du sëriñ bi mën ngaa ñëpp si waat ci kër gi xam nga ne loola coono bu rëy rëy la dara jaru ko kon nag ku bëgg a tedd bëgga moom sa kàddu bëgg dund ci dignité su boobaa dundeexal sa ñaq nga am jàmm ñii la yaakaar tamit am jàmm hectares yi des sëriñ yi mën nañ cee bay beneen bi ci tegu timit bëre du métier boo bëggee dund juróom-ñetti fukki at tànn métier am fukki at doyut ndax mbër moom carrière ba rek fukki rek la boo xasee am fukki rek yow commencé nga sa carrière jeex na waaw sa juróom-ñaar fukki at ya foo koy dundee kon kon demal nga wuti métier moo xam ne mën na laa dundal sa giiri dund feeg yaa ngi dund am lu cay génnee nga mën di ca dund te gis nga ñii di bëre bëgguñu ko dañoo amul pexe nit ku summeeku ay millions yi nit di xool ci seen i bët kenn ku nekk di wax bu ñu la daanoon benn yoon sax doy na waaye bët bu set gaa yi tegaat ko rek ngay daanoo ka daanoo bu jëm bu kenn xamut fu mu jëm loola kenn bëggu ko dañoo amul pexe nañ leen dimbale ci tool yi ñu bay su boobaa maanaam jàmm ne ñaa jàmm jàmm nekk fa ba tey tamit ak musique du bëre du maanaam du métier fecci boole kook di tëgg foo toll di way loo xam ne kenn xamu ko loola ña koy def bëgguñu ko dañoo amul pexe rek waaye waat naa ci yàlla ku ci amoon métier mu baax boo ne ko kaay way ma mu saaga la kaay dem nga bëri ji mu ne nangam ak nangam kon nag nañu dimbale nit ñi ñëpp dugal seen loxo ci yoonu yokkute dugal seen loxo ci mbay mi dugal seen loxo ci liy mën a développer réew mi bàyyi wax ji te fexe ba jëf ji ëpp wax ji waaye toog di wax foo tollu naan dàngam nangam dara doxul te yow mi koy wax doxaluloo dara tamit loola baaxul bala nga dañ wàññi jàmbatu yi ab jaam dafa war a sant yàlla ku mënalul sa bopp dara te lay mënal dara da ngaa war foo toll di ko sant réew mi nag li ko yàq bokk na ci jàmbata yu bëri kenn santatut yàlla wa qalilu min ibadiya shakur ja yàlla waxoon dëgg-dëgg boo ñëwee Sénégal nga koy yëg da ngay gis koo xam ne li ko yàlla defal terewut fu mu toll ma ngay jàmbatu rawatina suñ mbokk commerçant yi boo ne dëkk bi dafa dëgër mu ne la moo raw doj wala dëkk bi nangam mu indi la leneen lu ne nga nekk wax ko ko te maam Khalifa dafa daan wax ne adduna bi benn jaan moo ko wër xam nga jaan jooja la muy dundee ñu ne ko déeréet mu ne moo ngi dundee wërsëgu kat yi ma ne ndaw jaan juy rekk xam naa ne li gaa yi jàmbatu yëpp ñu dagg sa wërsëg jox ko moom dana lekk ba rekk kon ku jàmbatu rek dagg nañ sa wërsëg jox ko jaan jooja muy lekk kon ku bañ sa wërsëg wàññeeku bàyyil jàmbatu foo toll del sant yàlla nga gërëm ko ba tey tamit ñii di agressé ci mbedd mi ñii seen moromi yaay yi ñii seen moromi baay yi ñu ci bëri amuñu pexe waaye loolu tamit du pexe ndax nag li gën a yées ci métier yi gën cee bon gën cee ñaaw mooy kuy agressé yàlla da ko bañ bare nit bu agressé ba xas rey ci amatu fa moom rey na daal dañ koy rey rek jigéen la rey ak kuñ moom la rey ak ak koo xam ne dafa ñëw fii tabaarakallaahu di noppalu si bàyyeekoo ci réewam ma nekk ay nasaraan wala ñu nekk yeneen ba nga rey leen donte bokk leen diine yow dañ lay rey kon ray ray ak agressé dafa garaaw ba nga xam ne soo koy def bañ jàpp la yow moom duñ seet ña nga rayoon nawle wante ngeen wala déet dañ lay ray rek te foofa tamit buñ la jàppee amul ñu lay nangul ne da ngay joxe diya ñi bàyyi la amul ñu ne dañ lay jéggal bañ laa rey déedéet moom kay añ yu qattalu aw yu sallabu aw tuqta aydihim wa arjuluhum min xilaafi benn daal ñi rey la carrément wala ñi pendre la door laa rey wala ñi dagg sa cër yi ci jàllawle loxoom nday joor tànkab càmmooy noonu ñu taggee ko loolu mooy àtte képp koo xam ne yaa ngi agressé ngay agressé sa morom mi yaay ñii say moroom mi baay di jéggi autoroute bi man ngaa agressé ba pare sax ñi agressé waat la man ngaa agressé maire bi wala paa bi oto bi agressé la nga dee foofa ànd ak la nga jël ci moom dekkee ko yowmal qiyaam ñu àtte la nga dem safara ci waman yaxlul yati bi la xalla yowmal qiyaamati kon agressé baaxut dem leen ngeen liggéeyi uti métier mu ngeen teralee seen waajur yi waaye di dogaale nit ñi làmb ji tas ñi def benn fuul ku leen romb jël sa portable nga riposté ñi ray la lool a bëri lool nit ñiy dee comme weñ loolu ñaaw na ci suñu réew mii loolu ñaaw na te bëri na lool kon faw ñi yaraat ko yi te képp kuy dund ci agressé mujj gu ñaaw ngay am da ngay torox da ngay am mujj gu bon boo amul sens nga dee dem safara bu loolu yonentu yàlla Isa joxe na ci exemple dafa mos a toog xiif jàpp ko mu yónni benn mbokk ne ko demal nga jëndal ma ñetti mburu ñëw ñu mën a xéewlu waaja dem jënd ñetti mburu lekk benn ba indil ko ñaar yi Isa ne ko ana mburu yi ma la jëndalee woon mu ne ko ñaar rekk la Isa ne ko yow déggoo ma de mu ne ko dégg naa la ñaar rekk la léegi nag ñi dem mu ne ko baax na ba ñu demee jàpp génn kéwél ñi ray ko jàllal bi ko fees ko daggate ko lekk ba pare Isa def la muy def rek kéwél ga dekkiwaat mu ne ko tey ma won la bi juu bëccëg ana mburu ya mu ne ko ñaar rek la ñu demaat ba jël ba gis benn dex ñu traversé ko waa gi jàppandu ci Isa labul tooyut ba ñu génnee dex ga Isa ne ko ana mburu ya mu ne ko ñaar rek la am na ñoo xam ne loo leen won ci wàllu yàlla du tax maanaam ñu daanu xaalis rek moo leen mën a daane ba ñu demee ba ci yoon ñu seen benn dëkk rek Isa am lu mu def rek ñu jël ñu dajee fa xaalis bu bëri lu mat trente million Isa ne ko nag kaay yàlla jox ñu ñu wërsëg kaay ñi séddoo ko cër yi nag benn man benn yow benn ki lekkoon mburu mi mu ne ko man mii maa lekkoon mburu xam nga waa ji ku ñàkk jom la ku bon la Iisaa ko tey ma teqali koog yow yow jëlal jëlal lépp soxla soxlawuma ci dara soxlatuma ci dara jëlal lépp nit ku bon nga tey ma teqali koog yow waa ji jàpp ne am na kaañ bu rëy rëy mu jël trente millions ya ci saasi rek ñetti agresseur fekk ko fa dóor ko ba mu dee nangu trente millions ya kuy agressé foofu ngay mujj ñaar ñett ñooñu agressé ko tamit ñu ne ñun dañoo xiif comme am nañ xaalis duñ fi nekk yàpp nag lañuy jënd jëndi ñu yónni kenn ne ko demal nga jënd yàpp ñëw ñu mën a xéewlu waaye dem jënd yàpp bañ defar ko xelam nekk ci mu ne waay naa ci def poson rek ñoom ñi lekk ko dee ma mën a jël 30 millions ya mu def ca poson ñëw andi ko ba mu koy teg rek fekk ñoom ñaar kompaloo nañ ne bu ñëwee nañ ko dóor ba mu dee ñu sédd ko kenn ku ne am 15 millions ñu dal ci kawam dóor ko ba mu dee ñoom tamit ñu jàll bi ko lekk lekk yàpp wa dee bu ko defee 30 millions yi des fa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon liggéeya ngoog ñu góorgóorlu ci imaam Tamsir Ndiaye Yaksil nga sànni ay kàddu ci turu Sama Ndiayeen ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp yàlla na bàkkaar yi sippeeku xéwal yi yokku daraja yi yokk ngeen jéggal ñu ci waxtaan wi sonn rek waaye li ñuy wax sax jubut ak tabaarakallaahu coono bi ñu jànkuwante yal nañu leen yàlla fayal yal nañu leen yàlla fayal xool ah,